mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci seen tero bu ñu wax an-Nahwu al-Waadih juzul awal bi di ñëw ak yéen ci seen darsu juróomeel bi darsu bi passé nag jàngale na leen taqsimul fi'l séddale fi'l yi tey nag ñu leen di jàngal fi'l mudaari moom mooy jëf ju teew walla jëf ju ñëw moom nag boroom xam-xam yi dañ kaa tënk ci anaytu mooy bu commencé wul alif wala nuun wala yaa wala taa mooy xurufu anatu yi borom xam-xam yi ci lañ ko tënk faylu mu daaroo nag moom dafay tegtale def jamono ju teew wala ju ñëw mun al fi'lu mu daaroo mu daaroo al amsilatu li moo di misaali aksiru dinaa raxas yadaya suma ñaari loxo ak axsul dinaa raxas su boobaa lool jamono buy ñëw la dinaa raxas waaye axsul tamit mën naa firi maa ngi raxas yedda yee sama ñaari loxo loolu mu ngi tegtale jamono bu teew bi waaye boo ne axsul dinaa raxas lool jamono ju juy ñëw la albasu dinaa sol siyaa bi sama yére albasu dinaa sol lool jamono juy ñëw la waaye boo na albasu maa ngi sol siyaa ah, bi sama yére su boobaa loolu jamono bu teew la ndax wax nañ ne la fi'lu mudaari jamono bu teew ak jamono buy ñëw nalaabu ñu ngi foo bil kurati ci bal bi nalaabu ñu ngi foo bil kal ci bal bi boo ñu ngi foo su boobaa loolu bu teew la waaye boo na dinañ foo su boobaa loolu buy ñëw la namshi danañ dox fil xuquuli ci tool yi dinañ su boobaa jamono bi ñëw la waaye boo ne namshi ngi dox fil xuquuli ci tool yi su boobaa loolu jamono bu teew la mu ne yan baxu mi ngi baw alkalbu xaj bi soo ne yan baxu dina baw alkalbu xaj bi su boobaa loolu jamono buy ñëw la yan baxu mu ngi bow su boobaa lool jamono bu teew la mu ne yantabixu dana yeewu alxaarisu gardien bi yantabixu dana yeewu alxaarisu gardien bi boona yantabixu yantabixu mu ngi yeewu su boobaa loolu lu teew la waaye boona yantabixu dina yeewu su boobaa loolu lu ñëw taakulu lekk na albintu taakulu dina lekk albintu xale bu jigéen bi su boobaa boo ne taakulu mun moom de xam nga waxoon nañ ne feelu ma daara dafay nekk ci jamono bu teew wala jamono bi ñëw boo dina lekk su boobaa loolu luy ñëw la waaye boo ne mu ngi lekk su boobaa loolu jamono bu teew la mu ne tasbilu dana lax tasbalu dina lax alwardatu fleur bi tasbalu boo ne dina lax loolu jamono buy ñëw waaye tasbalu mu ngi lax su jamono bu bu teew la ñu ñu ñu commencé i'raab bi afsilu fi'lun mudaari'un marfuu'un wa 'alaamatu raf'ihi dammatu az-zaahiratu axsilu fi'lu mudaari la bu ñu rafaa te mandargaay rafaa muy damm gu feeñ sa albasu dinaa sol wala mu ngi sol albasu fi'lu mudaari marfuun wa alaamatu rafihi dammatu zaahiratu ala axirihi albasu fi'lu mudaari la bu ñu rafaa te mandargaay rafaa ga mooy damm gu feeñ sa muj ga mu ne nalaabu fi'lu mudaari وعلى مطرفه الدمة الظاهرة على آخره نلعب فعل مضارع la buñ rafaa sa mandarga rafaa mooy damm gu feeñ sa mujj ga namshi فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفه المقدرة على آخره فعل مضارع la buñ rafaa sa mandarga rafaa mooy damm gu feeñ sa mujj ga ينبح فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفه الدمة الظاهرة على آخره ينبح faalul mudaari'un la buñ rafaa tumaanal gaay rafaa muy dem gu feeñ sa mujj ga yantabihu faalul mudaari'un marfuu'un wa calaamatu rafcihi ad-dammatu az-zaahiratu calaa aaxirihi yantabihu faalul mudaari'un la buñ rafaa tumaanal gaay rafaa muy dem gu feeñ sa mujj ga ta'kulu فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تأكل فعل مضارع على بن رفع te maanaam gaay dafa am mooy damm gu feeñ ca mujj balu fi'lu wa marfuun wa calaamatu rafcihi ad-dammatu az-zaahiratu calaa aaxirihi taqbalu fi'lu mudaari la buñ buñ buñ rafaa te maanaam gaay dafa am mooy damm bu feeñ ca mujj kon loolu mooy i'raab bi fi'lu mudaari nag moom dafa tegtale woon dafay nekk jamono bu teew wala buy ñëw comme soo ne axsilu dangay wax ne dinaa raxas xam nga loolu luy ñëw la dinaa raxas waaye boo ne axsilu maa ngi raxas su boobaa loolu teew la kon feeru mu daare moom dafay nekk su lu teew jamono bu teew wala wala buy ñëw jamono bu teew lay nekk wala buy ñëw moom lañ tënkee ci borom xam-xam yi tënkee ko ci xuruuf anatu yi bu comme moom anay moom la borom xam-xam yi tënk def koo benn jumla benn baat mu nekk anaytu mu nekk anaytu kon jaal mu daaru bu commencé alif wala nuun wala yaa wala ta wala yaa wala ta waaye bu fekkee xuruuf yi dañ saa dañ saa dugg mu gën a damm su boobaa loolu mu daara la waaye bu fekkee sa gën a su boobaa loolu du fi'l mudaaxara ñëw si damir yi damir yi mu ne ana ana akulu anta taakulu naxnu naxnu naakulu anta taakulu anti taakuliina antuma taakulaani antuma taakulaani أنتم تأكلون أنتن تأكلن هو يأكل هي تأكل هما يأكلان هما تأكلان هم يأكلون هن يأكلن kon loolu mooy damir yi nga xam ne moo bu nekk ci fii damir yi fi'lu mudaari yi yooyu mooy damir yi soo jëlee tajlisu wa ana ajlisu na anta tajlisu naxnu tajlisu tajlis naxnu najlisu antuma tajlisaani antuma tajlisaani antum tajlisuuna antunna tajlisna huwa yajlisu hiya tajlisu huma yajlisaani huma tajlisaani hum yajlisuuna hunna eh, yajlisna kon yooyu mooy damiri damiri fi'lun mudaari'un ñu ñëw ci gëstu bi li mooy gëstu bi alkalimaatul ula baadu fi l saabiqati si misaal yi jiitu kullahaa lépp afaalun ay jëf la li anna kullan naka képp min haa ci ñoom yadullu day tegtale ala amalin fi zamanin xaasin si bu jagoo mu ne baat yu njëkk si misaal jiitu yëpp ay fi'lu la waaye fi'lu bu nekk ci ñoom dafay tegtale jëf ci jamono bu nga xam ne mooy jamono xaas mu jamono bu nga xam jamono bu jagoo la mu ne zaata bu seetantale xaal jamono bi jamono alxaasu bu jagoo fi kulin ci ñoom waja taw dañ fa fekk imma benn xaadiran mu teew wa imma benn mustaqbalan bi ñoom mu ne bu jamono yi bépp bu nekk ci ñoom dañ ko fekk mooy jamono bu nga xam ne jamono bu teew la muy wala jamono bu ne ñëw da waxoon nañ leen faalu mu daaro jamono bu teew rek lay nekk wala jamono bu ñëw faalu maadi moom mooy nekk jamono ju passé mu ne fal faalu jëf ji fal faalu axsilu fal faalu jëf ji axsilu raxas yi dul day tegtale ala xusuuli xaslin ci am ak raxas ga fi zamani xaadir ci jamono bu teew awil mustaqbal wi ñëw mu ne faalu axsilu bu dafay tegtale ci am raxas gi fi zamani xaadiri ci jamono bu teew lay tegtale wala buy ñëw asulu dafay tegtale ci jamono bu teew wala buy ñëw mu ne wal fi'lu albasu fi'lu albasu yadul da tegtale ala xusuli lubsi si am ak sol gi fi zamani xaadiri ci jamono bu teew fi'lu albasu moom dafay tegtale ci jamono bu teew tamit wala buy ñëw ndax fi'lu mudaari dafay tegtale ci jamono bu teew wala buy ñëw mu ne yu sama كل فعل بفعله من هذا النوع ci xeet فعلا مضارعا فعل مضارع mu ne danañ tuddee yëpp ci bila xeet fi'l mudaari wa idaa nazarta buñ xoolee ilaa xarfi al-awwal jëm ci xarfu bu njëkk bi fi kulli fi'lin ci bépp fi'lu min haadihi al-af'aali ci yila fi'lu wa ashbaahihaa min haadihi al-af'aali ci yila fi'lu washbaahiha ak yu niroog yooyu wajadtoo dem fekk uh, hamzatun hamza aw nuun wala nuun aw yaa wala yaa aw taa wala taa wa tusammaa dañ leen tuddee haadihi al xarfu yi xarfu al arbaatu yi ñeent xarfu mudaari xarfu mudaari yi mu ne boo sanantalee faalu rek ci yira faalu wala yu niroog moom danga fekk hamza wala nuun wala yaa wala taa yooyu lañu tuddee ñeenti xarf yoo noonu mooy alif wala nun wala yaa wala taa bu boobaa yooyu lañu tuddee fi'l mudaari moo tax mun la aw nun wala nun aw yaa wala yaa aw taa wala taa wa tusamma haadihi arbaa mun xarfu yi nii moom lañu tuddee fi'lul mudaari xarfu yi nii tuddee fi'lul mudaari mooy alif ak nun ak yaa ak taa mu amun aw nuun aw yaa aw taa yi lañ tuddee mu mudaari ñeenti xaraf yi ñëw ci qaayida bi gëstu bi buñ jàngoon yëpp moo nañ lay tënkal nii benn digg bu gàtt man al fi'il mudaari fi'il mudaari moom moom kullum képp fi'ilun la yidul day tegtal ci ji si am ak jëf fi ci jamono bu teew aw il mustaqbal wala bi ñëw mun fi'il mudaari mun jëf la bu nga xam ne dafay tegtale ci jamono bu teew wala jamono buy ñëw waxoon nañ leen ko ay yoon yoon sànq ci daru ci ginnaaw mu ne wala budda mënta ñàkk ay yakuna mu nekk mabduan bu commencé bi xarfin ci xarf min al axraaf al mudaariwa ci xarf mudaariwa yi moom alhamzatu mooy hamza nuun ah, ak nuun waxoon ci ginnaaw yaa ak yaa wa taa ak taa wala yaa ak yaa wa atta mu ne mu daare moom fi'lu la bu nga xam ne dafay tegtale jëf si am jëf ji fi zamani xaadiri su boobaa si jamono bu teew lay tegtale jëf mu mudaari wala jamono buy ñëw waaye nag fi'lu mudaari te ñàkk nag mu nekk di commencé xarfu mudaari yi nii xarfu mudaari yi nag mooy yan mooy ñeenti xarf yi nga xam ne borom xam-xam yi moom lañ ko moom xarfu mudaari yi mu nekk benn kalima muy nuun ak yaa ak taa kon li moo nekkoon darsu fi'lul mudaari bi nuriidu lil islaahi ma stata'tu wa ma tawfiiqi illaa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullah lépp lu ci jub ci yàlla la lépp lu ci dëng suñu néew xam-xam la ak suñu néew gëstu